moom moo ko organisé ak ki nga xam ne moom mooy Diarra Ndiaye ñoo def seen conférence tey tuddee ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ay kilifa nekk foofu ca dëkk ba nga xam ne moom mooy Kaolack ku ci mel ne Ibou Bambara nga xam ne ma ngay waajal li nga xam ne moom mooy bés boo xam ne ci ciy bëggal xale yi la lan demee Korité woo ci Sidi Diop moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne ñoom na ko patroné waaye tamit patroné ko Alaaji assan Diop bi nga xam ne wax dëgg yàlla taalibe sëñ Babacar Si rabbi taala anu daal di koy ndayale jigéenam bu ñu naan farma booy ñoom ñëpp nag ñu nga ci la nga xam ne moom mooy bés ba mbokk yi bu fekkee ne technicien bi mu ngi na ma yokkal li nga xam ne mooy umu kalsum bi su ko defee suñu yaram yi gën a neex ñu fàttali leen ca maquillage ba ña nga ciy gërëm ki nga xam ne mooy soxna Yacine yokku taar loo ñaaw ñaaw bu la sa kanam gi nga taaru ba ku la gis yàkkamti gis la waaye boo àndul ak Yacine da nga am gàcce ndax la mu la gisee woon bu fa yaasin taxawee kenn du la gisaat tey mbokk yi ñuy wax suñu jaar-jaar lu ma fàtte rek ki nga xam ne moom mooy jëwriñ dina ma ko dee am na ñu bëri ñu naan Abu Bilal amul xam-xam wax ji moo bëri ak wax ji moo neex waaye man xam naa ndax am naa xam-xam war a aw ma xam-xam est-ce que xam ngeen lem lem lu ko gën a neex est-ce que xam nga ne ak suukar ku dàq xam nga ne lem du moromu suukar. man nag sama dàkkantal mooy sin andaaru lem borom ñetti bekk sukkar yi waa képp koo xam ne nag sa dàkkantal dafa am lem war ngaa xam ne booy seet lu neex ci moom la fekk baax man sama maam da doon soccoo ñambi suukar ba mu jeex galax di koo lem jël bekk suukar yooyu ko def ko comme si ngoom kon kooku kuy wër lu neex ci moom ngay fekk baax waaw kon mbokk yi kii mooy jëwriñ moom fekk na samay jaar-jaar est-ce que xam nga ne lu bari nit ñi xamu ko te xam naa ko te nit ñi waxuñu ko te wax naa ko waaw est-ce que xam nga ne jën bu nekk am nga sa sant waaw lébu dëgg du lekk jën da koy jël jël ko maye ko waaye mun na koy lekk ak ndaw yow nga na jën lay lekk fekk li muy neex li muy lekk moo gën a neex jën <laughs> wallay wallay wallay wallay wallay dama ne wax dëgg yàlla dama mës a ñëw ci benn dëkk boo xam ne mosuñu gis ndox ma ñëw di ñaan ndox ñu ne ma ndox wakkanal abala asalan maasa wal kala al <laughs> ñu la ma yow li ngay laajte mooy lan man la boo maree naan li ngay naan ñu ne ma ñoom xamuñu loolu ndekete dëkk ba sanc nañ ko téeméeri junni at te musuñu gis ndox ma leen nag man maa ngi bàyyeekoo dëkk bu ñu naan bët gànnaar Israël ca Palestine mooy Daara Jolof ca bët gànnaar ba ca Hartasan mooy jaar ca Saalum wallaay dëgg wallaay dëgg ñu ne waaw pour ñu gëm la yow pour ñu xam ne yow yaay Abu Bilal wan ñu kéemtaan ñoom boo leen dompatee du ñu jooy boo leen jamee du ñu jooy loo leen def lu metti du ñu jooy seen ay waajur mën nañu génn àdduna du ñu jooy xamuñu rongañ gisuñu ndox waaye keroog laa def lu doy waar du ñu jékki-jékki waa ji ne ma sëñ bi yow li ngay wax bëgg nañ ko xam ma daa day yëkkati sama loxo joxoñ asamaan si na ko yàlla suñu borom dama la bëgg a teewal fii ci ñi nga xam ne dama leen fekk ñoom ñuy jaamu ay garab ay garab lañ doon jaamu ak ay xeer ma ne leen dama bëgg ñu ëlbatiku nag jox la bopp nag xam ne am na beneen yoon bu gën a neex boobu wallaay wa sat suñu borom ma ne ko dama bëgg taw bi wàcc léegi ba may waxee taw bi wàcc léegi géej gee njëkk daa dee bëraxu dugg ci dëkk bi mu jékki-jékki commencé taw ñoom ñu yuuxu naan waala waala kalba wasamal la lii lan la lii loolu mooy waala kalba waala kalba li waay mooy <laughs> que yàgg ma ne suñu borom ndox bi doy na def ko meew mu daal di wàcce meew ma ne suñu borom meew bi doy def ko lem mu wàcce leen mbokk yi ci conférence bi dañuy joxe kàddu yi ku ci am looy laaj pour ñu mën a gën a gaaw waxtu bi daf ñuy def réalisateur bi mooy xamal ne ci kanam tuuti am na émission bu ci tegu boo xam ne mooy waree fu Ramadan te ñooñu dañu war nekk direct live moo taxit waxtu bi dañ koy dagg te tekk ko ci euh, arab <laughs> maa ngi waaraate jinne yaa ngay ree wallahi <laughs> wallahi jinne buñ naan woo naa woo suna mu ngi leen di nuyu waaw ay ca ko am kuy laaj asalaamaaleykum maaleykum salaam soxna si jërëjëf oustaz Abou Bilal wallay wallay ñu ngi kontaan ci yow kontaan nañu di rafetlu aussi sa teewaay jërëjëf fii ci Kaolack ndax bu ñu la fii Kaolack nga bàyyi si te yëpp wallay wallay ñëw fii ci suñu conférence wallay wallay suñu conférence bi nag dafa am ñu ci jàpp ñu ci jàpp ku ci mel ni Ibou Bambara am na wax ak man Ibou Keita jàpp na ci wallay wallay enveloppe am ñëw na ah Mama ko chéri Omay Omay ñëw na jàpp na ci bés bi indi na enveloppe. incha allah Moustapha Barham Diop bu Barham Diop ñëw na indi na téeméeri junni. léegi nag ñu jublu ci laaj li oustaz. waaw man damay sëy waaye damay wujje waaye daal oustaz sama wujju sonal na ma damay togg ndogu maafe mu xëy togg maafe yóbbu ko ci géej gi xar yi jox nga ne. maafe. waaw laay togg sama wujju xëy togg maafe yóbbu ko ci xar yi. maanaam li ngay togg pour teral sa borom kër moom lay jox xar yi moom lay togg dem di ko yóbbu ci ngunu xar ya ma togg ceeb bu weex mu xëy togg ceeb bu weex lu ma togg oustaz mu xëy togg ko te li ma lay wax sama jour mariage biñ may mariage li ma war a sañse moom ndax sañse ñëw xëyee ko toog jàpp ñàmbara ba ne ci xef yi sax daf ko niróoleeg man sa sa sa wujj bi lu mu tudd sama wujj bi mu ngi tudd Seynabou Seynabou nan Seynabou Thian Seynabou Thian waaw Seynabou Thiam moom la tudd. noonu la tudd. waaw daal loo togg daal pour naqaral la mu dem togg jox ko xari. mu dem togg ko dem jox ko xari. te na nga koy toggee teg ko noonu la koy tegee. jox ko xari ni ma koy defee noonu la koy defee yére bi may sol moom lay sol. xari yan yan xeetu xar la ay bali bali. wala xaw ay bali bali kay ay bali bali. bali bali. ay laadum. laadum bali bali laadum. waaw. kon mbokk yi soxna si wax dëgg yàlla dafay wujjee. Mm-hmm. te lu mu togg lu neex rek wujjam togg ko dem jox ko xar yi. mooy maanaam yow la ngay tëralee sama borom kër moom lay tëralee xar yi ay wujjee wujje moo metti wallaay boo patawee ñu gaare waale la boo tuutee ñu gaare waale la boo bëree ay ree ñu ne dafa dof boo fasee sa kanam ñu ne policier la wujje metti waaye kii nga xam ne mooy Seynabou Thiam fan la dëkk Kaolack mu ngi dëkk ca Kaolack bu fekkee mu ngi ñuy seetaan wala ay mbokkam ñuy seetaan xam naa ci benn kilifa bu ñu naan Alaaji Maktar Thiam moom laa ciy rus ndax santa bu sell ba mm-hmm. waaye kii di bu ak ku nu nekk ci Sénégal seyna Seynabou foo munti nekk ci Sénégal tudd Seynabou war a yarkatu bali bali war a laaduma yaa xam da koy jënd war a da nga koy yar jàppal ne parce que ne tey loo woor wujj bii nga xam ne moo laaj question bi moo ko moom moom nga ko jox képp ku sey Seynabou si Sénégal yaa xam Seynabou Ndiaye Seynabou Diop fay Ndoye Seynabou Faye Seynabou Diouf konaate Konaté Seynabou kamara yéen ñëpp seen Seynabou yooyu yëpp la ngeen woor yàlla suñu borom da koy jël jox ko ki nga xam ne mooy euh, ñanga caan mi nga xam ne dafay teral borom kër jaaykatu laadum yi ak jaaykatu ngooñ yi ak jaaykatu bale bale yi moom nañu jàpp ne lépp lu ñu jaay xaalis ba ci boppam buñ ko joxul seen euh, ki nga xam ne mooy euh, ña nga caat jàpp ne ne génn nañ ci yoonu lislaam sax <laughs> loolu gën a metti ndax xare ñuy teral seen yoon nekku ci jërëjëf wallaay wallaay joxal keneen mu laaj kon enveloppe yi nag maa ngi koy séddale ni jërëjëf waa soxna ki ci tegu kan la. Euh, man la Ndeye laa tudd. soxna Ndeye Faye. waaw. soxna Ndeye Faye. wasa kan maa la kan Ndeye ah Kambare dëkkoo Kambare. Kambare laa dëkk <laughs> ah Oustaz. sa borom kër nekkul bitim réew. ankay yii Oustaz am xam-xam. sa borom kër santul ñu ngi. ankay ah Oustaz bëri xam-xam. Demba reeree woo Fonde. ankay ah oustaz ay ca laajal <laughs> yee nga xam-xam maa ngi lay nuyu bu baax a baax oustaz abu Bilal di la ziar di la ñaanal jàmm waaye di kontaan lool ñëw nag si conférence bi nga xam te ne ña nga caan moo ko organisé ma am si nag occasion di la laajaale sama benn question ba nga xamante ne lu ma ñor la mhm. ndax man ndeyaa traiteur lañ may woowee mhm. ma nekk traiteur bu mag ba nga xamante ne sama sama samay client fu nekk lañ may woowee di ma commandé ma leen yóbbul mhm. euh, yàlla def nag ma amoon benn commande ba nga xamante ne mouton enceinte laa defaroon togg ko ba mu ñor defar ko ba mu baax defar sama booli dem jël taxi fële ca kaas ba si ñoom Ousseynou gay bi ma demee foofu jël taxi nag euh, dugg ci taxi bi di wax téléphone di jël yeneen commande yu bari ma am ko si koor gi damay bari ay commande macha allah. Mhm. ni ma yàkkamtee nag ma dem ba egg fi ma jëm euh, Adam Sarr moo ma ko commandé woon ma wàcc taxi ba rek fàtte fa booli ba. bi nga nag. ma wàññeeku ne xaaral ma dem xool parce que yoruma numéro taximan bi bi ma demee garage bi ma dem fekk la ñu toog teg booli bi jël méchoui bi fee laa toll xet bi commencé ma xeeñ ndax na ma ko piqué woon ak la ma ko toggee xet boobu moom benn la man maa ko xam ndax samay affaire yi ma yore épices yi may def man dong maa ko am ma ñëw fekk la ñoom ñëpp wër bool bi di ko ndogoo ban garage la kaas ba garage su kaas ba Ousseynou Gaye garage Ousseynou Gaye la tudd d'accord ndey waaw nga dëgg bëggoon xam ndax ñooñu seen ndogu bi dagan na war a dagan ndax dagan na ndax mu too en koy lekk na. waaw ba ba muy rees dana dagan. lu tax. ba bañ koy lekk dagan na Ndeye ba ba ñuy rees dagan na. lu tax ndey li nga waroon njëkk def mooy génn addi da nga waroon génn li nga xam ne moom mooy euh, euh, maanaam euh, dangay ngay génne asaka. Hmm. te Ndeye da nga yàgg togg lu neex te génnoo asaka. te yàgg transporté di jël say jël seen oto di ci yëpp lu neex ñu koy xencu nga koy yàkkal keneen ñu wàññi ko waat a xet gi. dëgg la ndey ñoo ñi nga xam ne nekk ca gaaras ba ñoom ñoo am koor gu légal. ah, ah. gu légal. Ah. yow mi wooroon ba def ci say ñama-ñama doon xaar ñoom ñu xas leen. ndey yow jàppal yaak Aliou ñu ngi seen koor yàqu na. waa lu ndey yow ak seen waa kër seen koor yàqu na. lu tax yow bu fekkee ne am nga doom seen doom yi mun nañu war a teg a jënd leen yére ñu dem ñaani ndewenal ah? koñ ba nga dëkk ak ñi la xam yëpp ak ñu sant fay tudd ndey ak ku la mu sa jox loxo bi nga ñëwee ci télé bi ak bi ngay ñibbi yëpp jàppal ne ñoom ñëpp dañoo ànd wari ndax da ngaa tas yaakaar moo tax ñoom ñu tas sa yaakaar oh. nday lu neex kenn di ko togg di ko bàyyi ci oto xet ga di ko rey nga dem ñibbi bàyyi ko fa te mu too enceinte rek la mu too enceinte garage li ñu leef dagan na yow yaa daganul ak sa togg bi nga xam ne moom nga def nday ñu jàllaat ci beneen laaj jërëjëf bàyyi leen jaxase nit ñi ak nit ñi man kenn du ma dugal toog lu neex yegg ko ci oto xet ba rey safoor ba te yekkaloo ko lu mu gàtt gàtt nga jël ak koo jox ko bu doon yaasin nga xam ay ca ñu dem ku amul looy laaj gaaw leen. oustaz. waaw. ziar naa la bu baax nangu nañu ziar bi. di la jox sa wàccuwaay nangu nañu wàccuwaay bi. man de te képp laa am. boo ko amul loo koy amee. waaw mbégte ak contentement ci teewaay bi ma teew fii. Ah. ci conférence ñanga bi. Ah. waaw. surtout nag. da nekk ci ay jafe-jafe waxal. waaw moom la may dee nii. Ah. jëmmu nit la waaye jinne la. macha allah ustaas kii mooy jinne moor mhm. <laughs> ay ca waxal. man nag dafa am ku may bëgganteel. waaw mooy àjjana. àjjana la tudd. àjjana la tudd ki ngay bëgganteel àjjana la tudd. waaw àjjana. waaw moom nag. Hmm? dara kii wooguñu ñu ngi ci lewaatoo ah, alxayru jubagul mais dafa ma laaj suukaru koor six cent mille nee na naa ko yóbbul yaayam te te nee na ma suba suba laa ko nar a yóbbu hmm. te man instant bi lijjanti naa ba am deux cent mille nee na nag deux cent mille yi mënu faa dem hmm. dafa di nag yow sama ustaas nga te man sa soppe laa te yow sa ndigal képp laay woyee moo tax mu bëggoon nag laajte la ba xam loolu lu lan moo ci sa xalaat yow wax dëgg yàlla fi nga njëkk juumee mooy àjjana kenn du bëgganteeg moom yàlla la fay yóbbu yaay liggéey lu tax ñu yóbbu la àjjana boo jëlee ab nit tuddee ko àjjana rek yow yàlla ngi lay rëbb ndax ni àjjana mel ump na la xamagoo ko ni ngeen di def rek jël nit seen bëggeel seen bëggeel yi doo leen ko yemale ci ay koko koko bàyyi ngeen koko léegi àjjana ngeen di wax ak si yooyu ay tur la yoo xam ne nit ki bu ko xamul du ko wooyee nit ki ah àjjana ana àjjana ma nga ca duus ba loolu rafet na ana àjjana ma ma nga may teg loxo ana àjjana mu may lii bàyyi leen tur yu neex yooyu ngeen di tuddee seen borom kër loolu baax jërëjëf ah, oustaz ah yow yow yow tuddee ko sama tuddee ko bàyyi booy tuddee ko kilifa gi di ko tuddee àjjana ah lu sa yoon ci àjjana da nga dem ah boo xëyee de boo xëyee rek dee te xamul ndax àjjana nga jëm nag ah yéen yara nit ki te deewagul kay balaa ngay tuddee nit ki àjjana day fekk nga xam àjjana dama ne ñaata ko ko war a jox man 600000 laa ko la ni la la ni àjjana nee naa ko yóbbu naa yóbbu yaayam 600000. Ah. ci suukaru koor. Ah. waaw bàyyi ba dee boo demee àjjana nga yónnee ko fa. boo deewee. oustaz ndigal képp boo deewee boo demee àjjana nga yóbbu ko fa. ok boo demee ci turandoom nga yóbbu ko fa. bu amee keneen kuy laaj. asalaamaaleykum oustaz. maaleykum salaam. waaw kay ayca. maa ngi nangu nañ ziar bi xanaa da ngaa métti ci bopp. waaw bu la sonal. dëgg la kay yal na la yàlla defal jàmm. amiin amiin amiin amiin ah man de maa ngi am mbégte teew ci conférence ñanga bi ci weer koor bu sell bi di la baalu àq. baal naa la. Eh, amoon benn laaj bu ma la bëggoon laaj. yow dañuy déglu soxna si. man de dama doon dem Casamance ci bato bi comme bato bi day départ ci ngoon à partir de 19h. waaw ma daadi di ndogu. ah ci bato bi. ci bato bi. mais da nga ndogu ba pare soog a dem. non non ci bato bi laa ndogoo. Ah, parce que 19h la bato bi di départ. léegi bi ma ndogoo nag comme damay far di am mal de dissection ma daal di jël benn singom mentoche di ko yëy bi ma koy yëy nag par yàlla def ma nelawaale ak moom. Ah, ak si ngom bi. Ah. bato bi daal di egg nag Casamance à partir de 11h. waaw. man daal maa yeewu gis singom bi sama gémmiñ. sa gémmiñ. ma bëgg laaj nag ba xam am naa woor. Euh, Mariama. naam. si ngom bi nga fanaanoo sa gémmin ngay laaj ci ndax am nga koor. waaw. si ngom bi sa gémmin bi nga yeew da nga koo gis. waa bi ma yeewoo laa gis si ngom bi dama ko fa fàttee waaw. loolu Mariama laaj boo ko laaj sa bopp sa mën nga koo tontu parce que yow li ngay laaj i sax si boppam. sa bopp ah. mën na la koo tontu yow sa laaj bi la amul bopp amul génn bi. Ah. fekk naa gémmin sama singom sama gémmin fekk naa ci singom loolu loolu kay mooy <laughs> damaa yeew logop ginaar singom kat ci lekk yi la bokk Mariama wala singom da nga yaakaar ne saar la ah. bu doon sotti sax sotti ba warut a génne ndox Mariama est-ce que ça va ça va kay oustaz damaa fàtte rek ça va kay parce que yow li nga wax nii euh, yaakaar naa ne Mariama amoo ay xalaatu àdduna yu la jàpp non non aw ma benn ah, problème mais dama xam ne nam ngay yeewoo sax si ngom di ma laaj ndax dog naa war a doguma waaw ah, damaa bëggoon xam rek comme yaay sama oustaz bëggoon xam rek ba xam am naa koor wax dëgg yàlla yow koor wa dalaa wàcc ndax da ngay ah. fàtte da ngay naax yow nag koor dalaa wàcc yaag mag ñiy naax ci kër yi mm. nga xam ne bu ñu wooree léegi dog léegi mm. <laughs> yéen a yem mariama naam noo sant baaji baaji sant boobu tuddee mariama naax ah waaw kay boo ko deful sa sa koor gi yàqu na waay ma dem jëm sa singom ba neex la ngay xëy naa ndax singom bi dagan ndax am naa koor da ngay laaj nga ko tontu sa bopp ay ca ku ci topp. asalaamaaleykum oustaz. maaleykum salaam. Euh, maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. di la ziar bu wér a wér. di rafetlu teewaay bi nga teew fii nga xamante ne mooy ci diwaanu Ndar gu ndaw. waaw ci conférence bi nga xamante ne nag tubaarikàlla ña nga caan moo ko organisé. Uh-huh. Euh, dañu am mbégte nag ak contentement nga ñëw fii ci Kaolack. Uh-huh. tey nag oustaz dama amoon laaj boo xamante ne. yow dañuy déglu. waaw bu yéeme lool. man ku ne xam na ne damay def social. bu weeru koor jotee damay togg ba mu baax. Uh-huh. yóbbu ci brigade gendarmerie yi yóbbu ci feneen ak feneen. tey nag ma defoon sama monsieur agneau bu baax boo xamante ne dangay laal rek mu summeeku ma togg ko ba mu baax piqué defar ba mu baax ba nga xamante ne tubaarikàllaa boo tollee fële dalay xeeñ ma upp ko ci sama bool bu baax ëmb ko ba mu ba mu baax jox ko sama cag-cag bi ne ko yóbbul ma ko fee nga xamante ne moom mooy euh, <clears throat> moom mooy gendarmerie bi nga xamante ne moo nekk fee ca Wakaam livreur bi juum nag yóbbu ko fële ca Dakar léegi nag bi mu ñëwee ma ne ko ndax yóbbu nga ko fi ma la waxoon mu ne dafa juum man ci Dakar xam nga dafa am Escowa. waaw Escowa bi ah, ko yóbbu ko woon Escowa dama ko na ko ne moo nekk Wakaam. waaw kay compagnie Escowa. waaw kay foofu la ko yóbbu waaw kay foofu la ko ma ñëwee ma nga ko fee mu ma déedéet maa ngi ko yóbbu fi nga xamante ne moom mooy Wakaam ma ne ko waxuma la woon Wakaam ma sol samay euh, sama bopp ba fi nga xamante ne moom mooy Wakaam bi ma ñëwee damaa fekk ñu lekk ko sa la wax bi jëng ciy juum de ah waa ji wakaam la doon dem déedéet yaa ngi ko yónni woon mu dem yóbbu ko escoa laa ko yónni woon mu dem yóbbu ko wakaam te man waxuma ko woon batrin bu wakaam ah. léegi nag bi ma demee dama fekk ñoom ñu lekk ko ba mu jeex ah. ba jël bool bi yóbbul ma ko ci buntu ba tegal ma ko fa ah. yaa ngi dégg oustaz bi ma ñëwee nag ñu may créer problème te man damaa yaakaar ne ñoom ñi nga xamante ne ñooy résoudre problème yi ku am problème ci ñoom nga jëm tey jii nii bu ma amee bu mu amee ak ñoom problème yaakaar naa xanaa warut a garaaw lu rafet rek laa ci jubloo oustaz ma di la laaj foo mujjee lekk bi jot nga jotuma ci dama fekk ñu lekk ko ba bàyyeen ma fa ay yax oustaz ci ah, brigade ci biir ñoom ñoo ko lekk waa waa wakaam yi la batrin bu wakaam batrin bu wakaam ñoo ko lekk bay seeñu yax yi te escoa nga ko yéene woon te escoa laa ko waroon a yóbbu uh-huh. léegi nag ma lay laaj ndax ñoom oustaz am nañ koor wala amuñu koor wala ndax man li ma def nag yoon la wala yoon waaw comme que ñoom ñooy doxal yoon lu ñu def yoon la. Ah. waaw kay. <laughs> kon maanaam ñoom ñoo yor yoon duñ def rek yoon la. parce que sa càq-càq bi luy fekk ay gendarme yu xam ne wax dëgg yàlla jox nañ leen budget. waaw ñoom soxla ñu ndimbalu kenn. ñoom soxla ñu social ndimbalu kenn nga bàyyi ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ngay juum di ko yóbbu ci ay gendarmerie bañ ko la dóor bañ ko la ramasse bëgg ko la jàppale loolu tax nga xam ne boo ko fa yóbbee pour ñoom dañ koy jël xam nga xaj yi ne ci kaaba ñoom mhm. ñoo ko lekk yow ñoom seen yoon laal ñu waaw mais oustaz loolu moom kay dama ne la soxna si mhm. gendarmerie dañu am boo xam ne moom la ñuy topp waaw am na xeetu ñam yoo xam ne duñ ko lekk ña koy togg ci seen bopp dañu nekk ay cuisinier expérimenté yoo xam ne xorom bi du bëri du am yenn saf-safal yi mhm. yàq bu fay dugg rek dañ koy lekk ndax ñoom ñooy doxal yoon yow yaa doxalul yoon gis nga ñoom sa lakk yàq boobu boo mootul xaj yi nga xam ne ñooy défilé ànd ak ñoom ñoom nañ ko jox ah oustaz loolu <laughs> yow nag maa ngi lay xamal ne wax dëgg yàlla jàppal ne noo tudd. man jaara laa tudd jaara Ndiaye. waaw ah, foo dëkk kawoon. kawoon laa dëkk koo xam ne dëkk nga kawoon ndax sa tur bi daa sell. waaw na jàpp ne bés que ni tey. waa kawoon bu amul jëkkëru gendarme. waaw war a jëkku policier. war a koo xam ne def na laa 6-3 war a bataillon armée matériel ku sant Faal amoo turandoo boo xam ne gendarme la war a na jàpp ne sa koor googu yëpp c'est zéro. Ah, ah loolu tamit yéeme na de ah lii tamit kuy doxal yoon kenn du ko kenn du ko kenn ko kenn du ko tooñ waaw kon perte ndax ñoom lekkuñu ko ay ta soxna si te jël asalaamaaleykum maaleykum salaam Bilal maa ngi lay ziar nangu nañ ziar bi waaw tey nag sama teewaay ci conférence wu ñanga caan bi uh-huh. dama dégg ne yaa ngi fi rek ma ne naa daw ñëw waaw dafa am sama benn xarit boo xamante ne daal daf may dafa daf ma dëkkee tooñ Amsatou Gueye la tudd. waaw mi ngi dëkk fii ci diwaanu Yof Tongo. Uh-huh. mais daf ma dëkkee tooñ di ma tooñ di ma tooñ di ma tooñ saa su ne. Uh-huh. ndax daal imagineel yow oustaz ñun ñu ngi ci weerum ko uh-huh. bu ma xëyee woor ba digg njooloor yooyu nga xamante ne ay 2 heures jàpp 3 heures heure boobu nga xamante ne heure añ la. maam yow day fekk nga xiif wala nga mar. u may yónnee ay menu du jour. lan maanaam ay plat du jour. maanaam di ñu togg ci bés bi. di ñu togg ci bés bi. Ah, naan da koy togg indi la ko war indi. dama koy yónnee sama whatsapp. ah da koy photo envoyé la. ba pare ay yow yu plat yu ni neexee. daf koy def vidéo wala. daf koy dañ koy vidéo. maanaam ni koy yu ñu togg. Mhm. ay petit four. mooy petit four yooyu di am fromage yu li yu li dékk wi. waaw waaw ah. waaw yi am kii merguez xam hot dog yi am tamit merguez. tey am beurre bi ci biir. te muy fromage bi. Mhm. léeg ñu mu mu mu yónnee ma pizza boo xamante ne trois fromage lay doon. trois fromage. Mhm. naa ma mën a 10 jours tey lii la. day defar pitax moom. laay pitax yooyu ndax pitaxam nag moom. pitaxam mm. boo ko gisee da ngay foog ne ginaar est moom lay def poulet du pays. da koy def. Mm. poulet du pays rek lay togg du togg poulet poulet importé. Ah. poulet du lay togg. Ah. léegi léegi léegi poulet du pays yoo xam ne da koy yëy ba yeeyaayal yax yi. day def cere baase. mu yow am sa duggee def cere baase. Mm. day def cere baase day def cere ndimb. cere ne ba daay rek. da koy def day def sax maxalu saalum. nga ne xam ma lu ma gën a neex. da koy saalum maxalu saalum au fruit de mer. mbaxalu saalum à la fruit de mer. mbaxalu bawol nag du bi nga xam ne day bëri ñeppe mbaxal boo xamante ne maam ñebbe dañuy sóor liibaru liibaru ceeb ak kilo ñebbe am satu daal yii la may def ba pare li ma gën a naqari moom akara mu yow akara boo xam ne bu kurustiyaa bi nga ko yooyu mu naan kuruj karaj kuruj karaj bii lay def day def xeeru tubaa laa day def xeeru tubaa day def dege dege mu yow day def beneen bi bi kii ngatu ko ko am satu lii lépp lay defar beñe mbàkke bi rek da koy def da koy defar day defar beñe dugub day defar bañ a bañ a fëriñ attaaya Tiwaawan bi da koy defar moom laa attaaya Tiwaawan da koy def di def attaaya Tuuba ak attaaya Cenaba am sa du lii lépp lay def sebon ko tuddee sebon royal la ko tuddee cere ndim def léegoo li ma wax cere ndim boo xam ne laala ba day liddeeku ca kaw kii nag mi may tooñ oustaz laaxu sànqal bi da koy sànqal day def laaxu sànqal day def laaxu bisaab ak ndëtëreeg soow est-ce que sañ naa def ceebu jaga boo xamante ne ay gàmbaas la cay def lii lay def ceebu jaga ba gàmbaas yi nii la ñuy xool ma nii ak ay kalama rek lépp ci biir fiiriir moom laa ilaha illallah fiiriir boo xamante da koy pane fiiriir boo xam da koy pane lii lay def mbaa day bulet muy yéem bulet bulet bi bi xamante day am nen bi ci biir farce bi bi lay def nga xamante da koy dagg na quatre parties bi di ma ñaan naa ma xoolal zone def bi sañ naa sup laa ilaha illallah xam nga yeelu yeelu ku yeel yeeli kii yeel yeeli gëléem waaw moom la de bu paree xoolal sànni ci koraay koraay bi nga xamante ne day faj tooy lii da lamsatu yi def Ousseynou mi mën na tooñ de. day def benn Touba. laa ilaha illallah benn Medina benn Medina lay am am soto yi def benn Medina xam nga Medina moom boo ne pom pom ñëw. nga ne cere tiwaawan bi da koy def. nga xam ne yàpp bi day bëri cere bi nekk ci wet gi. déggoo li ma la wax am soto bàyyiwul dara cere tiwaawan cere Touba cere Kaolack cere Canaba. sañ naa def njóor ni te njóor ni muy yéen njóor ni sa Fuuta sax Omar Fuuta da koy def. daa ba dara. sañ na def bu xam sax. laa ilaha illallah mu xam sa ceeb bi est que day day def afranaar. laa ilaha xalwa bi xalwa bi moom lay def. sañ naa maa fe gerte. foo ne. maa fe gerte bu dugg tëmb ci kaw nii. ay bu doomu daawee. moo yeyee doomu bu farax toll nag teg ci daggu li rëy yoo xam ne hmm, am satu mii. am satu la. kat bi yaay yàlla na ko sama àq daal oustaz. oustaz Amsatou Gueye yàlla na ko sama àq daal Amsatou Gueye séeri bàyyi ñàmme yàlla na ko sama àq daal mooy yow de suluxu ki nga ne suluxu bi xam nga lu mu koy toggee xam nga lu mu koy toggee waaw jën bu mag bi lay jël fasat ko Amsatou mii oustaz léegi yow oustaz ba léegi waxo ma lii kii li may def loo ci xam ban mooy solution bi donc jot na ci Dakar ak li ko wër donc